nangu amal liggéeyam ca na mu waree noonee la joxe leng yi ki ko nar a wutu gannaaw ñetti at. kii di njiitu réew mi daf la jox SOMISEN waaye man dama lay jëbal sama doom faw SOMISEN doon ab jumtuwaay bi nga xam ne ci politique minière bi dana jàppale nguuru Sénégal mu sàmmonte ak disposition yi. ki ko fi utu nag yàkkamti loolu daal di àggale liggéey bi ne dina ci sumb lu bees daal di ci boole di wàccook tëralin yi ni ko yoon bëggee. je am na yaakaar bu baax ci personnel bu SOMISEN ngir mu gën a dëgëral koom-koomu réew mi waaye itam doon ponkal fii ci Afrique. yooyee loi nag la bëgg a jël daal di ciy boole ab management participatif maanaam ku nekk daal di ciy dugal loxoom société bi gàlloo mi yu Sénégal nar a amal liggéey bu mucc ayib. notre pays suñu dëkk waratul yóbbu bitim réew waaye minerais yoo xam ni daf koo jëlee ci suufam ba noppi di jéggaane ay produits pour ñu def loolee nag faaw ñu lëkkaloog ay investisseur fii ci réew mi waaye itam ci bitim réew dana gën a jox koppar état bu Sénégal. maître Ngagne Demba yàgg défendre projet PASTEF di xamle yëf yi ni mu nar a mel. le projet porté par le président projet bi nga xam ne njiitu réew mi daal dina ko jëmmal dafay indi ay tontu jëm ci ñu gën a moomaat suñu ay ressources naturelles ngir mën a sukkali suñu réew. bile passation de service diggante Ousmane Cissé ak Ngagne Demba di doon tànk bu njëkk ngir daal di fay andi coppite. ndaxte ku bees ki fi ñëw moo ngi dalal xeel yi rawatina personnel bi ne société bi dina ko yóbbu foo xam ne ku ko dégg daal di koy respecté.